alaikum mbokk yi seen mbokk seen soppe seen surga Mari job ma ñëwaat tey ji fas yéene séddowaat ak yéen si suñu yaakaar suñu ay émission suñu yaakaar waaye si manam ben xët bu ñu ubbi maanaam weeru injil fas yéene séddoo ak yéen nga xamante ni moo nekk si injil li yàlla wax si almasi bi li almasi bi insa moom si boppam wax si boppam waaye ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ak moom doon ay ndawam ay taalibeem itamit la ñu wax gis ko seede ko si moom ñu fas yéene ko indil eh, seddoo ak yéen tey bi ñaareelu pàcc bi ñaareelu bés bi su ma ko mënee waxee noonu si weeru linjil kon ñu fas yéene jàll si beneen eh, pàcc si dundub Insa almasi bi si ba tey injil yowaana saar ñaar Aya ben, ñu indi ben netali bu am solo bu am am solo ñuy wax si keman bi nga xamanteni insa defo naka mu donon danaka keman bi mu ñëk def si dundam si kaw suuf moy bi nga xamanteni soppi na ndox biiñ dinañ si delu ci wadna si indi tuti ay leral waaye loolu lañu fasiyene waxtane tay kon ma jangul li nga xamanteni mom la injil wax si bes bobu mu ni si yawana sar ñaar ay benn ñaari fan gannaaw loolu ab ceet am sa dëkku kanaan sa diwaanu galile yaayu yéesu tee woon na ko mu teg ci ni wowoon nañu itamit yeesu sa ceet ga ak ay taalibeem ca biir xew ma biñ ba daldi jeex yaayu yéesu ne ko amatuñu biiñ yéesu ne ko soxna si loo ma bëggal ndaxte sama waxtu jotagul yaayam daldi ne surga ya def leen lépp lu mu leen wax foofa amoon na fa juróom benni ndaa yu ñu yett ci doj yu yawut ya daan jëfandikoo ngir seen sangu set ndaa lu nekk mënoon na def daanaka téeméeri litari ndox yeesu ne surga ya duy leen ndaa yi ñu duy leen ba ñuy fees bay rembat noonu yeesu ne leen tànk leen ci léegi yóot ko njiiti xew mi ñu daldi ko ci yóot ki jiite xew ma naan ndox ma yéesu soppi woon biiñ xamul woon fu biiñ boobu jóge waaye surga ya tànkoon ndox ma ñoom xamoon nañu ko naka noonu ñu woo boroom ceet ga ne ko ci xew yépp naan wu neex wi lañuy jëkke bu nit ñi doyale ñu soog a génne yeesu des waaye yow da nga dencoon yi gën a neex ba léegi mu ni si ay si saar fukk ak benn firnde yi am na ci kanan ci diwaanu Galilée moo doon kéemaan bi yeesu njëkk a def si noonu la wone màggaayam te ay taalibeem gëm nañu ko bi loolu weesoo mu ànd ak yaayam ay rakam ak talibem dem deku capernaum waaye yaguñu fa kon muy benn pàcc si li nga xam ne moom la gis tey muy kéemaan bi nga xam ne la insa njëkk def si réewum kanan manam demoon si seet eh, soppi fa ndox biñ waaye dinaa ko tënk tuuti rek xëy eh, dina jur ay laaj yu te ñu si bëgg wax yëpp foo mënuñu ko waxee nii waaye dinaa joxe rek tuuti li nga xam ne moom moo xewoon ndaxte bu ñu waxee soppi ndox piiñ si e, xew yi jamono yooyu daanaka li may bëgg njëkk wax sax mooy e, li nga xamante ni moo doon seen li ñu daan gën a bay daf si bokkoon raisin te ndoxum raisin boobu moom lañ daawoon nal di ko servir si xew yi te moom la e, kii jiite xew mi ki doon toppatoo organisation xew mi lekk yëg naan yi mu ni si saar si aaya fukk mu ni si xew yépp naan gu neex gi la ñuy njëkk la ñuy njëkkee bu nit ñi doyalee ñu soog a génn ya sa des maanaam li ñu bëgg wax mooy dafa doon reprocher borom xew mi ni ko da nga dencoon euh, naan gu neex mi maanaam biiñ bi nga xamante ni wala euh, du biiñ sax laa bëgg wax raisin bi nga xam ne dañ ko dooraam nal nal gu bees gi mooy ndoxum raisin bi ndaxte dafay wuute ak buñ ko dencee ñaar ñetti fan ndaxte itam ma fàttali ni xew yi jamono yi dafay dem ba juróom juróom benn fan juróom ñaari fan ba lu ko ëpp kon dañ daawoon jël ay ndaa comme ni ñu ko waxee ay ndaa yu mag nal si nal ndoxum nal raisin bi sotti ko ci kon lu bés yi di gën di sore ndox ma wala jus ba di gën di naqari ba fermenté wu te loolu mooy indi ni ñu koy waxee mu mujj nekk biiñ mu mujju nekk biñ waaye si dëgg-dëgg li yeesu soppi woon ndox ma yeesu soppi woon dëgg-dëgg buñ ko gisee si ni ko nettali bi waxee ndoxum raisin la ko defoon jus de raisin la gën a nuru ndaxte loolu la ñuy firndeel loolu la kii toppatoo woon mbirum xew ma itamit doon firndeel. kon ma bëggoon indi foofu rek tuuti leeral si loolu euh, xëy na du ñàkk ni di ngeen si am ay laaj waaye ba tey rek mën ngeen ñu bind euh, si suñu numéro. whatsapp wala ngeen def commentaire yi indi seen ay laajte dina leen si gën a xootalal indi leen si ay tontu ma wéyal ba léegi si beneen pàcc si li nga xam ne moom la ñu fas yéene gis tey ji yeesu dàq ñi nga xamante ñoo doon jaay sa këru yàlla ga ma waxaat tuuti ci contexte boobu këru yàlla bi moo doon temple bi temple bi nekkoon Jérusalem te yonent yàlla Suleymaan tabaxoon ko ñëpp xam nañu nettalem yaakaar na te kilifa diine yi dañ doon def sarax saa su nekk nit ñi dañ daan indi ay sarax ngir ay baalu waaye dafa amoon feet tamit bi nga xam ne dafa doon fàttali bésu jéggi bésu mucc ba mooy bés bi nga xamante ne yàlla génn woon na waa bànni Israël dëkku Misra Moussa yonent yàlla Moussa xaroon géej ga te ñu jàlloon ak seeni tànk dañuy fàttaliku bésu jéggi boobu te feet boobu dafa waroon jub si te bu ko defee nit ñëpp dañ daawoon daw Yerusalem ca këru yàlla ga di def ay sarax ngir fàttaliku bés boobu kon dafa doon bëree semaine yooyu dafa doon bëree ay préparatifs ay wàccaay si xew boobu te loolu mooy récit bi ñuy dégg li fa xamante ne moom la fa insaaf yeesu fekk ak lam fa def mu ni si saar fukk ak eh, ñett màggalu yawut yi ñuy wax bésu mucc ga mu ngi doon jub si yeesu dem Yerusalem dugg sa kër yàlla ga bi mu fa demee fekk na sa ëtt ba ay jaaykati nag ak yi xar ak yi petax ak euh, weccikati xaalis ya toog noonu yéesu ràbb ab yar daldi leen dàq daldi leen koy dàqee ngir ñu génn ëttub kër yàlla ga ñoom ak xar ya ak nag ya mu tasaare xaalis weccikat ya euh, daaneel taabal ya daldi ne jaaykati pitax ya jële leen fi lii sama kër bàyyi bu leen ko def marché taalibe ya di fàttaliku mbind mi cawarte gi ma am ci sama kër baay mu ngi mel ni taal buy tàkk ci sama biir noonu yawut ya ne ko ban firnde nga ñuy wan ngir déggal ñu ne am nga sañ-sañu def li nga def yeesu ne leen daane leen kër yàlla gi ma taxawalaat ko ci ñetti fan ñu ne ko nga ne kër yàlla gi ñu tabax ci ñeent fukki at ak juróom benn mën nga ko yëkkati ci ñetti fan waaye kër yàlla gi yéesu doon wax nekkutu woon ab tabax waaye aw yaramam ci boppam la doon wax gannaaw ga bi yeesu deeyee ba dekki la taalibeem ya fàttaliku la mu waxoon daldi gëm bind mi ak wax jëleen yéesu waxoon bi yeesu nekkee yerusalem ci màggalu bésu mucc ba ñu bare gis kéemaan ya mu daan def daldi gëm ci turam waaye yeesu wóoluwu woon ndaxte xamoon na leen ñoom ñépp te it soxlawul woon ñu koy xamal dara si nit ndaxte moom si boppam xamoon na xolu nit wan bii tamit di beneen pàcc si suñu xët ci suñu jukki tey di ñi nga xamante ni ni ma ko waxee woon ci léegi-léegi dañu doon defoon kër yàlla ga dañ ko wecci woon soppi woon ab marché ndaxte jamono jooju ñu ma ko waxee nit ñi dañ daan jóge fépp ci Israël di ñëw Yerusalem te dañ daan yóbbu ay sarax kon nag da doon metti si ñoom ñu jële ay xar ay nag sa seen diwaan di koy yóbbu ci kër yàlla ga kon dañ doon préféré ñëw voyager ba agsi si bërëb ba te bu ñu agsee foofu ñu jëndee ko si foofu te dafa taxoon ñi nekkoon si wet ga ñi leen waroon doon indi seen ay jur di ko jaay comme ni ñu koy faral di gisee léeg-léeg si yenn E, wàccaayu yenn xew-xew yi ñenn ñi suñu ay mbokk dëkkandoo ñi jóge Mauritanie ñi jóge Mali ñi jóge yenn réew yi indi seen ay xar ñu koy jaay ci réew mi kon noonu la fa demee woon ba taxoon na bërëb boobu dafa nekkoon dañu mujjoon dem ba dugg ci biir kër yàlla ga def ka ab marché di fa jaay ak jënd ak wecceeku mu amoon business koom bu bëri doon fa dugg ba taxoon na nit ñi fàtte woon dëgg-dëgg li taxoon loolu jóg waaye gënoon jublu si xew-xew ak euh, maanaam euh, yéñ fa doon def te mu fàttali ñu li nga xam ne moom la yonent yàlla euh, Daawuda bindoon si saboor saboor juróom benn fukk ak juróom mu waxoon li nga xam ne moom la taalibe yi doon fàttaliku li nga xam ne moom la Insa defoon muy wax kanante ni cawarte gi ma am ci sa kër mu ngi mel ni taal buy tàkk ci sama biir kon loolu mooy li nga xamante ni mooy xët bi ñu bëggoon séddoo ak yéen tey jii si li nga xamante ni moom la Insa def li nga xamante ni moom la Insa wane firnde ak euh, kéemaan yi mu def te li mu doon wax tamit itamit si bu ñu tasee tojee firnde bi mu doon joxe mooy bu ñu daanelee kër yàlla gi si ñetti fan mu taxawalaat ko tamit xëy na bu fekkee ne daal am ngeen si ay laaj mën ngeen ñu fi bind te dinañ leen indil ay laaj ba mu gën a leer ndaxte këru yàlla googu dëgg-dëgg tabaxoon nañ ko si diiru ñeent fukki at ak juróom benn kon yéesu waxoon ni mën na ko tabaxalaat taxawalaat si ñetti fan lan la yéesu bëggoona wax kon samay mbokk xarit amdi jam ak soppé sen mbokk eh, Malick job si suñu ay émission suñu yaakaar waye si pàcc bi nga xamné dañ ko tuddé injil injil eh, weerub injil ngir yow kon déglul té yalla barkel la ngeen jëf dal leen yàlla barkeel te defal leen jàmm